dund bi c'est quotidien ñun ñëpp ñoo ko bokk le bokkale tartar yi ngeen di dund seen kër yi moom laay dund li ma leen wax démb rek tartar tartar la kër goo dugg am nay jafe kër goo dugg am nay jafe-jafe bu dul mag ak rakk di bàyyi ak yaay di loolu rogalaat ba dem ba àgg ci njaboot gu sew gi njaboot gu sew gi kon problème yaa naa partout mais nit ki boo ci jógee nag yaa xam ne comme problème xas na am ba noppi la fa des mooy gérer ko lijjanti ko xool ba nuñ koy defee ba problème bu jógee fa mais problème du am ba noppi saa boo xëyee di yokkaat problème rek di teg man nekkuma ci yow man fii laa xam sukóori mhm. lu dawee ci àll ba te ma mën a dàq wëlbati gàddu indi sukóori loola lay def man jow ma feneen jow ma feneen parce que dama am loo xam ni moom lay doxee muy principe dafa am lu ma gëm fii dama bëgg ñu xam ni maam Thierno Birahim bi mu koy jox Seydouna Ousmane Seydouna Ousmane magul ci ak njabootam c'est pas parce que aussi bi mu fii ñëw sama maam Mariama Sey moo fi nekkoon ak moom non non yooyu de mais dafa amoon ci Seydina Ousmane yaakaar dafa am ci Seydina Ousmane yaakaar Seydina Ousmane diiru mu di fi nekk nekk ci sukóor yi nekk fekk taalibe yi lu ñu liggéey bu bu bu mi jeexee bu ñu bu ñu bu nawet bi wàccee ba ñu ko defaree mu jël at yi jox ko sëñ mu daaw Balla mi fi nekkal Thierno moom mi nga doon bay waaram ma ne nekk gii ma nekk fi dama fas yéene. yaakaar ji nga xamante ni bi borom daar Darou si amoon na ko ci na Ousmane yaakaar ji bëggum du tas de nii ma ko taxawoo nag noonu ma koy taxawee noonu ma ko gëmee noonu ma koy doxe lii ngeen ma fekk nii may nekk nii sukóor yi di ko def am njàngat la am njàngale la pour yéen ñëpp liggéeyuma goruma bàyyuma yettu seen ñaar téeméer yeeg seen téeméer yeeg cent franc vingt cinq yi nga may jox giñ naa ci Seydina Ousmane moo ma gënal ko gàddu ay milliards am ci àll ba di ma ko jox te bu subaa mu mën a taxaw fii saagam. lii fi ngeen jox ma ko ngir Seydina Ousmane nag moom laa fi def. Hmm? kon xanaa benn instant am na ñu doon wax yeneen doon ko waxee neneen xanaa léegi danañ noppi. Hmm? dinañ noppi wax dafa am foo xam ne bu fa tolloo yow mi ko doon wax da ngay obligé man nag damay nit koo xamante ni bii sama yoon newul ci yoon li ma nekk daal maa ngi ci ku ci bëgg a nekk ak man damay obligé na ma ca nekk ak na ma bëgg mu mel ni mhm. nga mel noona nekkee ci ak man ca noona kon nañu fexe mhm. loolu nekk parce que dama bëgg mu nekk jëy sunu na Ousmane boo xamante ni bi lépp loo xamante ni bi dafa xewati ci l'islam wala ñu bëgg a jóg dem taxawu ji suñuy mbokki jullit comme nañ daan def mm-hmm. bu ñu waree dem ci ay armeel nettoyé ko ngir njaboot ya fa tëdd seenu njaboot man leen faa fekk ci lu dul am benn risque ci ñoom mm-hmm. lañ daan def ndox mi bu nangoo këri jàmbur ñu takku doon benn say dem taxawal ko lañ daan def ci hôpitaux yi ngir dem du leen jàppale ngir nit ñi parce que feebar dafa mënta ñàkk parce que kenn ku ci nekk ñun mën ngaa xëy mun la kii tim nga dem hospitalisé boo demee ci hôpital boo xam ne da fekk mu salté tilim ay microbe kese sa tawat du gaaw a wér nañ ko doon defee nag noonu laa bëgg mu continuer moo tax ma bëgg Jason bi mu taxaw te nekk Jason bu solide bu dëgër boo xamante ne bii ñu civilisé ndax dafa am yeneen liggéey yu ëpp solo yu am solo lool yu nekk ci suñu kanam yoo xam ne dañ cee àgg parce que liggéeyu sikoor yi di gis ni dafa tàmbuleeku liggéeyu sikoor daa tàmbuleeku liggéey si ko di tàmbaleegul man damay def installation pour ñun ñi fiy ñëw di ko liggéey ñu mën a am fuñ toog. su mhm. ne installation lay def de mais barke noo leen liggéey di commencé. barke mhm. installation bi lay def nag. parce que nit boo demee ci àll dem ci barab bëgg faa nekk di liggéey il faut nga installé wu ñi lay ñi ñiy ñëw di liggéey si au moins am fuñ dëkk. Mhm. ñu demee nag ba loolu sotti. incha allahu rabi bu boobaa la ñuy xam ndax liggéey bi tàmm na war a tàmm. jërëjëf Mbacke jërëjëf Mbacke. TV Fallou TV Fallou.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 ndax si àdduna kese la soxrante am yàqlaate ak liggéeyante waaye heureusement bam nay boroom xam-xam yi fi nekk yi la mën a defal ay ñaan ngir nga mucc si loolu te sëriñ Xaadim Fay bokk na si ñooñu ak sëriñ Xaadim Fay moo xam muy ku rab jàpp baandut ak sagoom mun na ko defaral ay traitement yu baax ba rab bi bàyyi ko mu nekkaat nit bu mu nekkoon góor gu néew kàttan tamit ba mën a dara soxnaam sëriñ Xaadim Fay mën na ko jox ay garab yu efficace ba mu yëgaat boppam lii de hémorroïde interne tamit ak externe protection ku cat jàpp tul yaakaar cuy tas góor bu rab jàpp ba muy masturbé wu ku bëgg a bàyyi tux wala naan ak yeneen ak yeneen woo Serigne Khadim Faye sa kër ma saa alaaji paate mu jàppale la si si numéro bii di 77 914 30 30 ak Serigne Khadim Faye jaaxle jeexati na naataange yegsi na